ñu ngi ngaraaf ñu ngi ngaraaf fii ci côté jàkk ji retraite retraite ci jàkk ji bon li ko waral mooy dañu gis suñu quartier salte ñu am ñu am ñu baax ku mel ni sama rakk bi ku mel ni sama rakk bi ñun ñëpp ñu taxaw xool ne suñu quartier bu yàqoo ñu la yàqal xam nga fii ni ko tubaab bi liggéeyoon jomb ñu quoi ñun ñoo ko moom. fi c'est la ñu gis mu ñaaw salte bi bëri suuf si gars yi dafa seen chantier bàyyi noonu dem seen ñoon ñu xool ne lii bu ñu ko bàyyi suñu Médina mooy yàqu ñu jël suñu rato suñu peel def tout pour lépp rafet moo lii nag seetluñu ci kenn ku ci ñëw ak ku ci ñëwul lépp ñu suñu devoir mooy biñ koy def am na ñoo xam ne sentir nañ ne Médina lañ dëkk affaire bi na nga gëm ne doomu Médina nga parce que sa gox yow yaa ko mën defal quoi soo ko defalul kenn du la ko defaral bon mu gis ne kii moo nga xam ne moom mooy sama président mooy sama lépp moom lu mu kiyam gars yi ci jàpp mu rafet mu def action bu rafet ñëw woote ne nañ ko defar ñëpp jàpp ci affaire bi nekk fee bu nice quoi xam nga mais du question lu ñuy politiquer wala lu ñuy dara dañuy xool suñu koñ dañuy xool suñu koñ mu nekk loo xam ne ñun talu ñooy politique xam nga ñun tal gis suñu kon mu ñaaw ñu defaral ko suñu bopp du gouvernement du leen ñun ñoo gis suñu lépp nga xam ne lii ñoo ko mën defar ñu defar ko parce que boo ko defarul bu taw bi ñëwee day yàqu fi gars yi dindi woon mu nekk ay pax yëpp defar nañ ko ba mu rafet xam nga loolu rek la woon mais leneen li si des yëpp bon du leen quoi bu ñëpp defee ni ñun tamit day gën a rafet parce que suñu Médina ñoo ko moom. maa ngi tudd El Hadj Chamsidine Ndiaye maa ngi dëkk euh, rue 13 angle 16 Médina Ngaraaf bon initiative bi lenn rek ko waral dañ toog xam nga liggéey moom dama jàpp ne kuy liggéey danga nga war am logistique bu baax Médina ko xam xam bokkoon na ci koñ yi nga xam ne wala secteur yi nga xam ne nii tali yi ñoo gënoon baax bu taw bu tawee ndox bi day dem mais ñu ngi ñëw ne dañuy defar ay canalisation yu bees dëgg la loolu baax na loolu dañ koy rafetlu sax parce que nit ñi yokk nañ ñi fi dëkkoon nag léegi bokkatul mais booy defar canalisation boo defaree ba pare mais ñiy defar tali bi nañ ci topp ñu bañ a bàyyi noonu koñ yëpp ay pax la bu tawee ndox bi day dugg ci biir pax yi après ci fondement kër yi la jëm. initiative bi tamit ñu ngi ñaan comme munuñu xaar ay gouvernement ay maires yi parce que ñun kenn fay ñu cent franc ñun ci koñ bi lañ dëkk fii lañ dëkk ñun ñi ñëpp ay mbokk la ñun ñëpp dañ xoog xool xam ne lii buñ ko defarul. di nga am sa gan wala yow nga soxla sax pour génn koñ bi doo ko mën mais ñu ngi sant yàlla bi nga xam ne nii suba ba tey ñu ngi fi depuis 9 heures bàyyiwuñu gars yi ñu ngi fi ñëpp jàpp nañ ci grand yi ñoo ngi nii ñëpp suñuy mag lañ biñ leen woowee dañu bàyyi li ñuy def yëpp ñëw jàpp si te initiative la boo xamante ne mënuñu di toog xaar ay mairie na si ñëpp ñëw jàpp Médina ku ñu def nii sa koñ génnal nga def nu même chose nga defar après nag bu mairie ñëwee jàppale ñu jël bu ñëwul ñu jël bu état ñëwee jàppale ñu jël bu ñëwul ñu jël parce que fii Médina bëri na ñu mën a booy dañuy xëy di toog bëri na ñu jàng fii ñu ku jàngul am nga métier gars yi dañuy bu élection jotee dañuy ñëw taxaw sa kanam def la ay promesses yoo xamante ne bu élection yi passé fàtte nañ la moo tax genre yi ñun bu ñu koy def sax du ñu bëgg sax politicien ñëw parce que boo ñëwee rek da ngay indi leneen te ñun soxlawuñ loolu soxla nañ. ñu ay xalaat fi lañ dëkk rue 13 ang 16 ku ñu ñëw sees si dinañ la wax lo xamantene ni di nga xamne boy am nañ ay ambition. waaw man délégué de quartier bi sama ndijay la sama cousin la tamit en plus bi ñuy bi ñu waree taxawal affaire bi nañ ko ne ko ah ñun de wa koñ bi fi dañ bëggoon defar. après ci lañ bind UCG ñooñu al ben bi ngeen gis ci ginnaaw fu ñuy sotti mbalit yeex yoyu bañ après sax ñuy talimaata la koñ bi jox laaj nañ leen seen avis ñu may ñuko ko ñu defar. penc bi nag dafa yaatu am na yeneen koñ yi fi nekk ñoom tamit bu ñu gisee lii wala ñeneen yi bu ñu ko gisee dinañ jéem a ku nekk def sa walla ci tool bi. voilà maa ngi nuyu Sénégal di fi ñaan jàmm yàgg fi di nuyu waa Medina ku ci nekk si sa tur ak si sa sant man maa ngi tudd Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké mais ci bàmb lañ ma gën a xame waaye lii nag du fi gule daal ndax ñun bi ñu juddoo ba léegi li relève la ñu juddoo fekk fi suñuy tons nekkoon fii ci koñ bi bu nawet daan jot ñu bale koñ bi tracé fi ay camp football camp handball def rapatak nag ku xam naa dinaa ca démb xam ne Rue 13 moom beneen affaire la daan doon léegi tamit en même temps ñu gisaale système bi changé waaw gis gars yi ñëw liggéeyal ñu waaye bi ñu liggéeyalee ba pare nañoo bàyyi recours yu noonu te waroon nañu ko mën a liggéeyal ba mu rafet chaque at man nag booy yi chaque at duñ ci xaar kenn chaque année nag. boo fi ñëwee di nga fekk koñ bi ñu defar ko ba mu rafet xaaruñu kenn waaye ku ñu ci dimbali tamit ñu jël ndax Sénégal bu setee ci sénégalais la Médina bu rafetee ci Médina waa Médina la bu baaxee tamit ci waa Médina la te en fait tamit am na may lancer wala appel tamit suñu autorités yi ndax ku màggul ba jureelu màgg di nga màgget dama bëgg ñoom ñu xam ne ñun du ñaay xale ba système yi ñuy dund ak ñun bu élection jotee nga ñëw taxaw wax ñu waxu folklore wax ñu say intérêt xam nga gars yi ne la pare nañ pour jàppale ci après bu ñu la jàppalee nga bëgg la nga bëggoon boo ko amee war leen ñun loolu nekkatuñu ci. dëgg daal bëgg nañ ku ku pare pour ñëw jàppale nu pour ñu liggéey si sunu gox pare nan pour jàppale la ñu liggéey gox bi Sénégal jëm kanam.